prezydencja Rady Gry, prezydent Korona, Korona, Ksana, Kryza, Zory, Ryber, Zory, Zory, Zory, prezydent Rady, Pala, prezydent, prezydent Rady, Gamu, Dumur, Suri, Sura, Karty, Kar, Plato, Kapra, Sarka, Kosra, Bin, Sandu, Sumande, Palba, Ona, Jak, Lele, Mune, Krar, Zaz, Official, Duku, Veno, Sura, La, President, Dal, Af, Lebor, Sura, Sebar, Jam, Lof, Sasa, Kar, Balbu, Kar, Balbu, Dum, Dum, Dum, Maksal, Dum, Dum, Nyam, Nyam, Ñu xaar ba xam ci wote ba ko ci président ko kar wote fa lay wote salaamaaleykum waaye tegal fii parce que pousse machine bi waaye wuyu ma pousse machine bi nee naa la ba tey emprunté da ngay dégg jëlal pousse machine bi nga teg ko fee teg ne diwu machine bi ndax événement du caaxaan bu leen ma yàqal quoi eh. waaw kay sëñ bi. waaw waaw salaamaaleykum. ma ni salaam ma ni ana lu waral sa woote ci bir pale bi. waaw sama woote dara waral ko loolu mooy tailleur yi dañoo sonn. ah lu leen sonal. lu jóg ñu ne li lii laa tailleur lii te tailleur yi gars yi clients yi ñoo ñu sonal quoi. ma ndax yéen nan la leen xanaa da ngeen a ñawul ñaw yi. non ñu ngi ñaw ñaw yi mais mënoo bàyyi ba ñu ne la euh, julli gi des na ay trois jours quatre jours nga bëgg a indi ay ña ah, wa ñi ngi liggéey mais moment boobu day xat bu ko defee ma rus la jël sa ñaw mu tardé nga ni tëyër ba la fekk yow yaa ko def man yow tamit ana loo mënul noo nga ba di ko jël jarul non dama ni déglu ma tëyër bu ñaw ba ñaw yi jeex ci événement loolu baaxul ci tëyër du gàllaaju tëyër ah maanaam daal da ngeen a bëgg daal mu leen di dugg duggee génn ba merci di ñu fëgg ñu naan kay jox ma sama jooy ñëw bu xale bi ñëw yooyu dafa maanaam ci rek ba ñaw yi jeex eh waay Samba maanaam daal yéen ay problème ngeen di wër. non déedéet déedéet non non non mais xam ga tailleur euh, métier mu noble la. waaw te euh, ñàkk gàllaaj weesuwul. événement jot yow tailleur bi nga ñaw ba jeexal tàkk tàkk ñaw mais foog nga desal loo xam ne après julli gi moom ngay kaajee ndànk-ndànk et puis loolu jooy yi client yi jooy jooy yooyu wërsëg lay doon ci yow. eh waay Samba. bu rëy sax. <laughs> koy xam de. ma ne ana looy li may tàggoo mooy nañ yombal euh, kukku machine nañ yombal puso machine nañ yombal euh, euh, wëñ nañ yombal popeline nañ yombal garniture yi quoi ndax téere yi dañ cee war a gis seen bopp bu baax a baax a baax. ndax xam ngeen ni machine mais loolu ñun machine original bee ko gën. mooy bi ngay def ci programme rek ko. waaw ba tey ñun <laughs> ñun ñun li ñu mooy vérité bi mooy li nga xam ne moom la suñu borom moo ñaale ci yow. mooy jàng ko nekk emprunté ba mokkal ko beru. ayca baax na ja bi jërëjëf. votre correspondant peut-être pour le moment. vous appelez tout de suite ayca ko penaa la